asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ ko doon defee rek à chaque fois nee nañ leen dañuy doxantu si ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñiya kon ni leen ko doon defal defal nañ leen ko à chaque fois yeneen di gis tey naka ñu ñëw seet si ko fii si kër Ndiaye Lo ñoomaat contentement bu baax a baax a baax parce que suñu papa la suñu xarit la kon ni may wax rek dafa bokk ci wasaare ba pare nekk suma xarit moo tax à chaque fois rek. suñ ko bëggee day yomb mooy sama papa Père Kairé tey moom laa seet si ñu fas yéene waxtaan ak moom rek instant bi làmb fu mu toll ak instant bi mbëri ak li nga xamante ni mooy arrivé Père Gaston ak claf bi ñu waxtaan ci moom ndax xam naa ne loolu moom dina leen neex dañ koy bàyyi mu nuyoo après ñu tàbbi ci waxtaan bi papa maa ngi lay nuyoo. Euh, maa fay maa ngi lay fay di am kontaan rek à chaque fois euh, dajeeg yow rek di la àdduna moom noonu la rek expérience moom dañ koy xel di partager rek surtout li nga xam ne nag moom mooy li nga xam ne ñun moom la xam muy làmb donc euh, saa yeneen fi bëggee ñëw moom la porte est grandement ouverte donc di wax ne la soyez les les la bienvenue ñu waxtaan rek si mbiru làmb <laughs> am na solo papa. Mm-hmm. Euh, mais Père Kairé euh, gis nañ ne instant bi làmb. Mm-hmm. fi mu toll ndax gis nañ ni fa mu fa mu fa mu neexee. Mm-hmm. fa mu neexee fa nañ ko daggee. ndax li nga xamante ne moom mooy mbas mi. ba léegi nag am na coow. gis nañ ni problème yi. ñu bari na làmb daa yàqu. ñii ne instant bi bari ñoo ko yàq. mais instant bi nan nga gisee làmb fu mu toll tolluwaayam. waaw ni ma gisee tolluwaayam rek euh, mooy que benn benn kuréel ga loo xam ne. wala benn mbir moo xam ne fii si Sénégal dafa am doole parce que dafa doon suñu sport national nit ñi nag bëgg ko lool parce que ku si nekk rek sa réew am na loo loo xam ne moom nga si wàllu sport am na loo xam ne yow yaa ko créé mu am lu mu doon ci dëkk ba donc làmb doon fii si réew mi loo xam ne maanaam dafa am dafa représentatif xale yi bëgg ko mag ñi bëgg ko ñëpp bëgg ko ndaw ñi bëgg ko góor ñi bëgg ko jigéen ñi bëgg ko mu am benn instant ñëpp dañ daw ut ci làmb mbir nag bu demee ba nga xam ne produit bu demee ba nga xam ne ñu ko ut si dafa bari il faut ñu assainir ko teg ay mesures barrières comme ni ko ni ko tegee ci corona bi mesure barrière fu mu amul rek après am ay yàqu-yàqu. làmb nag bi mu doxee ba toll yenn niveau yi amuloon ay mesures barrières donc moo waral ñu dem ba yàgg mu demee ni mu demee mais rien n'est trop tard il suffit ñëpp ñu waxtaanaat toogaat autour d'une table ki ko ŋànk. tey mu ne ci loxoom muy monsieur le ministre Matar Ba maa ngi koy nuyu mu waat ak lu laam ñëpp toog ñu waxante dëgg nag bàyyi jaayante yi bàyyi jëwante yi bàyyi affaire yoo xam ne c'est pas sain parce que yi ma wax nii yëpp bu nekkee ci benn mbir après day yàqu parce que nga xam ne mooy borom kun fa yëkkoon li mu wax yomb na ànd leen doon benn xàccandoo dóorandoo man ma indi suma yërmande mu dox mais benn certain temps làmb loolu amatu fa dafa bëri woon ay coups nit ñi duñu waxante dëgg ku ñëw wax si yow nga déglu ko bu la wanee ginnaaw nga wax leneen donc lool su amee rek dafa indi moo indi problème bi tey moo indi problème mu làmb mais bu ñu demee ba conscient que ne dañu war a toogaat waxtaan lépp teg ko si yoon je soo waa rek lépp dina nekkaat euh, en rose làmb doxaat. neen mm-hmm. làmb ni meloon charme bi mm-hmm. ñu gis euh, ci côté kii bi mm-hmm. nu mu tudd kenn ku nekk sa culture wàllum séeréer ñi euh, ñi nga xam te ne ñoo nekk ci wàllum euh, kii bi nu mu tudd culture bi ñu bari nañ làmb dafa perte culture am ndax kenn xamatul léegi séeréer yi lañ gis au moins léegi ñoom ñuy ñëw mais kenn ku nekk sa wàll da nga koo xaw a perte loolu lu muy def ci làmb comme ni ma wax tout rek mbir la ka daan doxal la taxoon mu saf xorom la taxoon mu saf daxaar la taxoon nit ñi bëggoon ko loolu kenn du ko ci génne te dafa am ay facettes yoo xam ne si ceebu jën boo ko ci génne dootul ceebu jën leneen la ko mën a tuddee <laughs> yéen xam ngeen li ma la <laughs> Sénégal moom mun naa ne <laughs> ceebu jën moom bu ci nekk rek am na façon boo koy toggee uh-huh. waaye am na yoo xam ne c'est mënu ci ñàkk te mooy loolu nga lima bu fekkee ne yooyu yëpp euh, nekku ci rek après dootul dootul am valeur boobu mais la tax làmb di doxaat toll fu mu tolluwaatoon ba nit ñi bëggaat bëggaat ko lépp mu ngi fi lépp a ngi fii mais des fois am na ay divergence yu am làmb wala am na ñoo xam ne tey ñu ngi fi woon am na lu am na lu ñu def ci làmb day day toll foo xam ne maanaam vie vieille euh, maanaam euh, danga nga vieillissant day ñëw da ngay vieillir wala euh, maanaam envie ba nga amoon pour doxal amatoo envie sa mag ñëw na foofu da ngay da ngay da dem indi ay ñoo xam ne ils sont jeunes nangul liggéey bëgg lay bi ñu ko defee rek làmb ji doxaat mais je crois bien que ne loolu rek moo tax làmb ji xaw a sooxe nii mais après je crois ak ak saison yii di ñëw am na noo xam ne bu ñu ko doxalee nitu làmb yëpp ñëw ñu toog waxante dëgg te ko ci yoon làmb ji day doxaat parce que lépp a ngi fi. ñi nga xam te yéen a yor écurie yi. Mhm. ndax euh, ñi ngi naan léegi bu gars yi bëreetuñu màgg bëri moom moo fi am. Mhm. parce que écurie yi léegi. da ngay mhm. ñëw rek. soo mhm. xawee am tuuti poids. Mhm. ñu ne léegi da ngay bëri xale yi jàngalatuñ leen bëri. Mhm. ni ñuy takkee ngemb. discipline loolu yëpp jàngatuñ ne da ngay ñëw daal. mat mat mbër rek. ñu kii wala mais loolu est-ce que tey xale yi euh, jarul yéen ñi am yéen nekk ci écurie yi. ngeen di tàggat. parce que ñu bari yéen dañ leen xaw a joxoñ tamit tuuti dépaire yaa ngi dégg jëw boobu. waaye li ci ëpp rek tey jii nga xam ne ñoo ko ŋànk ñu dénk leen ko bu ci problème amee si ñooñu la ñooñu ñooñu la ñuy joxoñ baaraam. parce que avant écurie bariwul woon mais làmb dafa jékki-jékki rek dox écurie yu bari donc ñu yombalal ni ñi ubbi écurie donc c'est ça le problème parce que dafa am ñoo xam ne tey ñu ngi ñu ngi euh, ñu ngi ay euh, ay écurie ubbi ko ñooñu c'était c'était pas normal ñu jox leen ay écurie parce que xamuñu ko mënuñu ko gis nañ secteur bi dox na rek ñu daal di ko ñu libéraliser écurie yi. libéraliser licence euh, licence écrit ñëpp ubbi écrit mais da ngay gis am na ñoo xam ne tey dañu lay dañu lay rom naan la man am naa sama écrit écrit diw la nga ne ko yow foo toj est-ce que mës ngaa bëri est-ce que entre non laa xam nga entraîneur laa dafa garaaw un entraîneur Sénégal dañu yombal lu bëree bëri léegi nag yooyu ñu yombal mooy indi problème bi mais un entraîneur je je donne l'exemple de Zinedine Zidane c'est un grand footballeur mais bi mu bëggee doon entraîneur qu'est-ce qu'il a fait dem jàngiwaat entraîneur dem uti ay diplôme am ba am diplôme d'entraîneur mun a ñëwaat mun a yor yor des des grandes euh, euh, équipes comme le Real mais Sénégal ngay gis fii làmb yi ngay gis ñoo xam ne jox am nañ ubbi nañ écurie peut-être mënuma tudd seen tour mais xam naa ci ñu bari ñoo xam ne mosuñu doon mbër mosuñu takk ngemb mosuñu doon entraîneur te ñu jox leen ñu jox leen mais donc yàqu-yàqu foofu foofu foofu la commencé te lool moo normal loon avant y avait même pas quinze mais tey boo ko calculé boo ko compté on est en cent cinquante écuries donc yaa problème yaa problème te ñooñu ñu ko jox tey jii kenn xamul fu ñu mos a toju ñu fenn ñu bëri loolu moo indi problème léegi bu ko fee écrits yooyu bu mu koñ boo ko ubbee rek nga gis ay xale ñoo ne bëgg a doon mbër. xamoo ñoo xamoo loolu la ñuy entraîné xamoo ndax da ngeen war am na si xale yoo xam ne bu ñu bëree xoox parce que ka leen tàggat xam na ne lii muy def tegu ko ci yoon. ka leen tàggat xam na ne war war na mun a xam jàpp tànk wañ. boo dugalee si fexe c' est pas pour rien bi je exemple de Eumeu Sène Modou Lô ba Birahim Ndiaye taxawee ne dana ko tegal mais boobu ñu kuy làmb xamal ne action boobu loolu rek moo fa mën a mais kooku ku mënul bëri da nga mën a xam Birahim jëli si si succès boo xam ne koo xam ñu ne non père Birahim na parce que dafa mën a bëri xam na ne lii boo ko defee lii am wala ma léegi loolu moo amatul si écurie yu bari ay nit ñoo xam ne des gens yoo xam ne kenn xamu leen si làmb ñoo ñëw ubbi ay écurie parce que làmb ji doxul ces gens là tey bu méttee dañ fiy dem ñun ñoo fiy desaat yooyu mais ñun ñi xam ne ñooy écrit sa bët nga xool écrit yi nga xam ne ay mbër ko yor ay ndaanaan rek fay nekk c'est pas xam nga dalee looy chercher. Mm-hmm. xoolal écrit yi nga xam ne ay anciens lutteurs ñoo ko yor des champions yoo xam ne ñoo fi nekkoon yor ko tey ji écrit yooyu. ñoo fi nekk téye làmb ji. mais yeneen écrit yëpp dañuy folote parce que ña ko yor ñoo loo foofu loolu làmb du seen du domaine c'est ça le problème. gars yi ne dañoo sonn ci 2-2 ñi nga xamante ni. daanante nañ seen biir. Mm-hmm. ñi nga xamante ni bëreeguñu seen biir. Mm-hmm. barki démboo ñaa ñuy dégg Lac de Guiers numéro dë mm-hmm. ne ñëpp bëri nañu roi man maa ci des. combat am ak ki nga xamante ni moom mooy Eumeu ni nga gisee combat ak ki nga xamante ne moom mooy hmm. ak ki mooy Tafatine hmm. ñu gis ne dafa am problème adversaire trop hmm. trop trop te boo doon conseiller Tafatine ci kaw tey moom ñan la war a mën a bëre combat ñaar dem boo xamante ne dina ko mën a lancé waat waaw xam nga làmb aussi dafa am ay jamono wax day dema dem ba si yéen ñi si kaw euh, ngeen di bërinde seen bu yàggee muy le monde daal muy amateur léegi si doyal léegi il faut que mu amaat ay maanaam ñu li olof yi naan ñu changé waat karte gi te loolu noonu dafa yàgg ci làmba dem ci biir changer carte gi léegi nag loolu su amee maanaam loolu intérêt làmb la intérêt làmb la seen intérêt la ñoom qu'on se dise la vérité man moom wax moo koy wax dama koy wax ni nga xam ne peut-être ku ko déglu ëllëg doo ma jëppi wala doone kii ni mu waxee baaxul mais làmb moo soxla ñu changé waat carte gi parce que loolu ñu si kaw bëri nañu seen biir bëri bëri ba benn instant nag nit ñi dañuy doyal ci combat yooyu dañuy bëgg loolu mooy maanaam làmb ji moo imposé loolu làmb ji moo ko imposé te loolu dafa war a am par force léegi nag lenn la lenn la xëy na yow da nga koy bëgg wala doo ko bëgg parce que aussi ñoom seen choix la yoruñu seen carrière ñoom ñoo xool seen ñoom ñooy xool li ñu li leen leen bëgg xel wala ñu li am li dal seen xel ñu def ko en fait for naa nag si waawoon nag xaw ma yooyu béykat ne Gris bëggul. Sa Thiès mhm. Tapha Tine bëggul. Reug Reug mhm. waaw léegi en général loolu nag loolu ñoom seen choix la sax wax nañ ci. waaw waaw nañ ne bëgguñu. Mhm. loolu nag ñoom loolu loolu mënu si def benn benn commentaire parce que seen décision bu jëlal seen bopp la kenn mënu ci avancer. mais nag li làmb soxla ngay wax que ne làmb yi dafa toll foo xam ne léegi war na mun a am ay ñu changer carte gi xale ñëw ñoo fekk mag ñu bëri seen biir. beneen aussi jàngat mi si am que aussi at yi xaaratu leen fii quoi ñoom at yi xaaratu leen fii te man li nga xam ne suma gagne-pain la non ñu fey ma lu ko jaral ñoom dañ koy wax sax des fois da ngay gis mbër nga dëkk mu naan man soo ma joxee mbër mu gaynde sax wala yaaw jaal sax boo ma ko joxee boo ma fayee lu ko jar ma bëri ñoom ñoom dañuy mbër yi dañuy communiquer noonu. waaw mais tey ji boo demee ba xale ba xale boo xam ne def na résultat bu tax nga bëri moom mais bëri ak moom nañ la fay lu ko jar parce que lamb ji xaarat seen at un lamb ji xaaratu leen fi seen âge xaaratu leen fi xale yi aussi dañuy dañuy war a dañuy progresser dañuy ñëw koo ci bëriwul la nag bu déwénee mun nga dem ba sa feerekari sax nga bëgg a bëri ak moom loolu am na fi ba taay bañ benn mbër nga dem ba ci biir mbër mi liggéey fi loo xam ne ëllëg sax yow yaay bëgg a toppaat si ginnaawam di bëre moom léegi compréhension lay am lay bëre yow ilaa mu ne la non ma moo ma ma ne bërewu ma ak moom xam nga donc euh, aussi war nañu xoolaat seen bopp xam ne problème bi làmb ji am ñoom seuls les lutteurs ñoo ko mun a résoudre la lutte a un problème ce problème là pour ñu résoudre ko ñoom il faut que combat am Balla Gaye Boy Niang Gris Bordeaux Sa Thiès Tapha Tine rek wa ilaa Tapha keneen ok mais daal ñu échange. waaw ñu échange may booy chance may booy chance. mayale seen bopp ñoom chance parce que ay millions ci poos kat kooku du chance de ay millions ci poos <laughs> loolu waaw seen chance la ñu mhm. mais je crois bien que bu fekkee ne offre bi baax na te tegu na si yoon. man gisuma li tax mënuñu bëri. daal jaadu na. gis nañ gars yi yi. gis nañ tonnerre. Mhm. Euh, ay ñoom ama neex gaa yëpp ñu ngi ciy wax ci combat boobu. Mhm. ay ñoom Modou Anta. Mhm. jéen ba léegi ñu gis ni bien vrai que mbas bi mais mhm. gars yi euh, proposition yi. ni mu demee ak tamit nan nga gisee gars yi génn sorti yi. jéen jéen ak combat yooyu noonu est ce que yéen yéen a ngi xalaat. gars yi ñu ngi leen di woo di leen proposer ay combat waaw ñu ngi ñuy woo semaine la preuve rek semaine passée rek woo na ñu dox ñu dox combat mais problème euh, maanaam bëre euh, euh, pour mu bëre moom du problème adversaire yi mais toujours problème de cachet la ñoom nee nañ bañuñu bëre génn mais risque la pour ñoom donc dañ leen di fay lu ko jar loolu aussi ñoom seen choix la man nit ki du ma ko man daal nit bu defee choix am dama ko koy nangu rek li essence bi signal bi daal mooy il est jeune te mi ngi entraîné te si yoon dañ ko ne entraîneel am na ay rek mu ngi ñuy déglu bu baax a baax a baax je crois bien que munoo sa papa mu doon un ancien muy footballeur muy kii. da lay teg si yoon si yoon mooy entraîneur y' pas de secret. en matière de lutte. tu tentes di gagne des combats tu ne personne moom il a comprendre loolu mi ngi entraîner je crois bien nag le moment venu xëy na ñooñ bu ñu demee ba xam ne làmb aussi gagne pen la liggéey la souvent nañ nangu ñëw liggéey ak moom parce que liggéey la rek ah waa ji lay fay fay ko ngeen liggéey après ku si ne nekk sa yoon. mais lamb daal xam naa ne munoo daan ñëpp munoo bërëg ñëpp ñëpp munuñoo daan da ngay daan ñi ñuy daan la ainsi va la vie problème si si si si promoteur mooy ñoo ñuy proposé ñun dañuy liggéey rek te je crois bien que ne nit nit tey jii munul euh, munul jaar si làmb xam ni làmb mel ñu di kase sa kër nga naan du ma ko jël li problème yi am yëpp du suñu niveau du à notre niveau yeneen camp yi la depuis mu takk ngeen ba léegi man à niveau man ma suñu mosuñu dox combat yéen ba mu am problème boo xam ne si ñun lay jóge mosul am toujours rek si yeneen cas adverse bi lay jóge quoi. donc ñun xam nañ leen moo tax daal nañ ko ne entraîné rek lu ñu benn ma magumbar waxoon njaay mu daloo jógul daal bu fa njaay mu jarul bu fa dara jóg entraîné rek un jour viendra tôt ou tard. Hmm, ñun foofu lañ ko kal gars yi ñi wax tamit ci problème poids bi ñu bari ne yéen. Mhm. xàmmeetuñ ko ndax mhm. pois bi mu yoroon ak bii dafa am différence pour pourquoi yéen. Mhm. ngeen kii ngeen ñàcc ko quoi loolu la. <laughs> gars yi ne yéen dafa ndaw quoi dafa ndaw. moo tax mu foofu lay dangereux boo xoolee combat yi mu gagné yëpp combat yi mu gagné yëpp dafay waaw dafa am état de forme boo xam ne. da koy indi agressif gaaw vive parce que làmb léegi ak ak lépp léegi sport léegi il faut nga gaaw am vivacité mais am na match yoo xam ne boo ko yoree rek li nga bëgg doo ko def <laughs> ba ci combat bi mujj lool la parce que boobu il fallait ñu travail mu lourd diis ba nga xam ne bu waaj yi parce que kii ki mu doon bëree moom euh, simpi rek la lay bëree mais travail nañ la jën loo xam ne mënu bi ñu jàppante xam na ne kii mënul simpi jën donc munu ko daan après mu téye boppam est-ce que nga mais te mbër aussi mbër dëgg dëgg dëgg ni nga koy gisee ne bu nekkee ci géew <laughs> du benn quoi mais ñun xam nañ bu baax ki ñu yor xam nañ qualité yi ne si moom parce que ñoo ko juddlu ñoo ko yar xam nañ bu amee poids bi lii la mën bu amee poids bi lii la mën mais ni mu nekk ni moom macha allah. kon normal macha allah. Mhm. doy nañu bu baax a baax a baax. làmb yëngu. Mhm. Gaston Mbengue mhm. ñu gis ni dafa waxoon mhm. bàyyi na suñu père. <laughs> mu ñëwaat ci làmb. ñëw Gaston day nu muy def nu di ko si kontaan rek ñun daal ñëw Gaston maa ngi lay maa lay nuyu au passage le Don King de la lutte sénégalaise. sama xarit sama mag sama kilifa aussi. Uh-huh. Gaston dafa dafa joué sama carrière lu bari sama combat yu bëri moo ko tëgg xam nga. Uh-huh. te moom dafa di ko xam ne daal moom nitu coow la quoi. comme ni ma ko waxee taal rek vraiment kooku moom dafa bokk ci làmb et bi mu fi nekkee dafa marqué empreinte am si làmb mu doon koo xam ne a chaque fois rek bu ñëwee ci làmb dangay gis ne vraiment làmb ji de amaat beneen engouement. Euh, ñu gis ne aussi gis nga bi mu ñëwaatee jamono yi déclaré rek vraiment gis nga làmb ji dafa yënguwaat loolu rek day wane ne Gaston ci làmb ji la bokk kon dañ koy ñaanal yéene ci et puis dafa yéene mbër yi nit ak bëñ ak bëñ ak il faut ñu xam ne ñoo ñoo ñoo ànd ak yenn saa yi ñoo <laughs> bëñ day màtt làmmiñ non gasoo su ma xarit dégg ma ne lu ne euh, sama combat yu bëri moom moo ko tëgg uh-huh. te gis nga mbir boo ci bokkee boo ci génnee nit ñi dañ koy sànni mais boo bëggee ñaar gis nga dafa defaat beneen buum donc mu am mu am yéene et puis indi lu bees mooy comme euh, combinaison yi nga xam ne def na ko yu am solo la yoo xam ne bu ko tëggaatoon tey bu ko su ko su ko réalisé woon kon ni nga gis làmb ji euh, saison bu neex mais dommage que ne bon d'après information yi ñu jot a jot que ne am na si ñoo xam ne bëgguñu quoi donc loolu day wane ne nag affaire boobu day demaat au ralenti parce que aussi lëf soo ko bëggee mu amaat buum la nga xam ne mosul am moom nga fay indiwaat moom xam na ne loolu bu ko fi defoon moom macha allah làmb yi day neex par force. mais nag comme ni ma waxee tout à l'heure ne écurie yi la écurie ils sont organisés. seen staff si xëy na gisuñu ne kii mënul bëre kii yàlla kii war a ah, donc xam naa day toogaat mun na aussi xool ba yeneen communaison mun na parce que aussi làmb ji yaatu na mais daal ñoom ba daal ko naan ñu ngi koy ubbil à bras ouvert xam ne ko naan moom na ñëwaat sponsor yi ñëwaat il fait partie aussi de l' Gaston te ku ne Gaston tey xam ne mi ngi ci régime bi fi nekk te tey régime bi fi waroon mën a nekk waruñu nangu làmb sooxe donc on interpelle on interpelle encore la chef de l' état que ne il faut mu jëlaat ay moyens suqaliwaat làmb ji moom rek moom mën a moom rek moo fi mun a tax làmb ji amaat euh, maanaam nekk fa mu nekkoon ku dul moom keneen mënu ko ci làmb ji. yaa a aucun promoteur boo xam ne war nga mën a taxaw fii pour suqali làmb wa illaa le CNG wala le monde de la parce que ça demande des moyens te moyen boobu état bi kese moo ko yor. beneen mooy gis nañu bombardier mooy hmm. bukki bi leen màttoon hmm. déwén incha allah. 45 hmm. yi. ñu gis ni jee def na fi tàkkusaan bu ne. waroon naa may Balla Gaye revanche. Modou Lo Eumeu Sène woon na koo may revanche. mais tey 45 euh, ans mi ñu am ñu ne. bëgguñu mu dem. ñii ne dafa waroon a terminer. Mhm. yow Bombardier tey soo ko doon jox. Mhm. tey combat boo xam te ni war na koo mën a bëre. Mhm. soit Eumeu Sène wala Balla Gaye ban combat ngay choisir. li ma si njëkk a wax rek mooy que amul fenn ci àdduna bi. amul fenn fenn fenn benn dëkk ci àdduna bi foo xam ne dañ naan la at bii ngay bàyyi sport amul fenn foo dem dañ naan la defal ba mu ba nga ba doyal nga bàyyi wala defal ba ba population bëggatuñu wala defal. ba promoteur amatuñu yow si yow confiance parce que gis nga euh, hygiène de vie am na ñoo xam ne yàlla da leen ko may tey les lutteurs VIP ils ont am dañu am ay hygiène de vie yu baax donc je crois bien côté boobu CNG bi dañoo juum mais dañoo dañoo am structure boo xam ne bu ñu juumee tey boo leen boo leen ne da ngeen juum duñ ko nangu c'est ça le problème du CNG suggestion boo leen ko defee def lañ leen noonu suggestion te suggestion mooy tax nga avancer. mais tey Baboy bi muy bëreeg bi muy daan bi muy daan euh, Baye Mandione ah, quarante cinq ans la te mënoon na bëriwaat cinq ans ñoom Mor Fadam ñoom Dame Suguène ñoom Maam Gorgui Ndiaye bëri nañu ba jusqu'à cinquante cinq ans pas yooyu dañoo bëri ay cinquante cinq ans lañ bëri. Mm-hmm. te léegi nag la xale yi gën a xarañ ci entraînement yeeg yooyu Bombardier mi mënoon na bëriwaat dix ans ci kanam. mais kon quarante cinq ans. xale nga quarante cinq ans xale nga. quarante cinq ba tey dese nga doole. tey jii le cas de Mike Tyson rek boo ko xoolee dafa à cinquante trois ans mi ngi bëgg a benn benn benn benn benn retour te boo xoolee entraînement mi gis nga ko il est il est hyper bien te ay bombardier yi mun nañ bëriwaat Eumeu seen noonu Gris Bordeaux noonu parce que tey ñoom ñooy mag yi mais nii ñu leen bëgg a arrêté à quarante cinq ans je crois bien que ne ah na écrit yëpp jógaat peut-être. bindaat ay lettre demande CNG ñu xoolaat loolu. mais Bombardier moom bëggagoo mu bàyyi léegi. ah bu kiyal mu bàyyi dem continuer def beneen espoir gis nga. pour dire que li ma waxoon rek laay dëggal que ne amul fen si àdduna foo xam ne dañ naan la bi bàyyil mi ngi nii di bàyyi bëre war a dem defi te ñooñu dañ ko koy xel di ko accorder jusqu'à dix ans quinze ans si kanam bu ko neexee si moom daal la des. donc c'est ça quoi. ban combat moo gën a neex si combat bi yoo xam te ne tey sentir nga ni. war naa mën a bëreeg moom. pour delloo àdduna njukkal. Bombardier wala Balla Gaye combat boo xam te ni combat choc. waaw dafa am ñaari dafa am euh, dafa daan benn roi des arènes jël roi bi ci moom. am roi bu am ku ko daan jël euh, jël kii ci moom jël roi bi ci moom. moom da ko jël fee perte ko fii muy diggante Balla gay ak Eumeu Sène bi donc ñaari combat yooyu ay c'est des combats logiques. kum ci am rek combat bu neex la pour moom. wa ilaa mu dem jëli revanche si Gris Bordeaux si daan na ko fi waaw Gris daan na fi Bombardier donc Gris doo Balla Gaye Eumeu Sène kooku combat yooyu yëpp. bu ci Bombardier am rek combat bu neex la neex macha allah am na solo père duñ la duñu instant bi da nga nekk ci li nga xam moom mooy yoon mais beneen mooy dafa am loo xamante ni yow porteur de voix nga papa nga lépp nga mhm. ñu gis instant bi réew mi mu doxee mhm. ñu gis nañ ak instant bi fu mu tolluwaat bëgg démboo njaay gis nga xale yi nekkoon cité mixa mhm. société mën nañu wax ni gis xale yoo xamante ni ñu jaay seen bopp ay affaires kii fi amoon guerre des tarixa yi nga xam ne ñi ñi wax fii gauche mais instant bi nan nga gisaatee société bi ni mu commencé ménate hmm. en tant que porteur de voix hmm. yan kàddu nga ci am euh, yi ma si mën a wax rek mooy que euh, bu fekkee ne si wàllu diine mag ñi fi nekkoon mag ñu baax lañu woon dañ daan demalante di tuddante ay doom doon ay kóllëre doon nii donc mais génération bi nañ xool ci mag ñooñu rek c'est-à-dire xam nga mënoo man nit ki mënoo am ay référence mënoo am ay référence ñoo xam ne seen nekkin seen dundin nii lañ meloon yow nga bëgg a mel neneen kon yow la mais ñooñu lañ fi tegoon ba tey ñu ngi fi wala way laa nga xoolal njabootu ñooñu rek tey boo demee ci kër maam borom tubaa kër maam alaaj Maalik kër maam Baay Laay xool xoolal ñooñu seen seen njaboot ni ñuy dundee yar teggin bëgg lu baax jaamu yàlla ñu ci lenn tey nga dem nga may wax ay cité mixta ñi nañ fa non nañ nañ xool référence yooyu xool ne fii euh, koo gis muy muy dund ci àdduna am na am empreinte booy teg ba ngay dee bàyyi ko fi mais empreinte boobu ñaanal boo demee na yàlla na rafet mais li li tax mu rafet mooy leen yar ak teggin rek mais mag ñooñu fi nekkoon yëpp liñ fi bàyyi ay ndono yoo xam ne la xam nga dafa sincère dafa dugg man de si yoon teg suma tànk. valeurs yi nag nañ il faut ñu garder waat sunuy valeur garder suñuy valeur am ragal yàlla du nekk si mais am na ñoo xam ne as góor wala as julit du ko def. l'émission tire à sa fin. kontaanate nañ ci yow. chaque jour nee naa dañ am contentement pour dékk la mm-hmm. suñu micro. Mm-hmm. parce que suñu papa nga suñu mm-hmm. xarit nga dañ la estimer. nga ñuy conseiller. bëgguñu. di ñu teg ci yoon. Mhm. moo tax à chaque fois rek lépp loo mhm. xamante ne bëgg nañ ko ci yaw mhm. day yomb nga accordé ñu ko bu baax a baax a baax kontaan nañ ci yow bu baax a baax. di la ñaanal yàlla sàmm la. yàlla la yàlla aar. yàlla bàyyi la fi. Euh, yàlla suturaal la. yàlla bàyyi la suñu kanam ba lépp loo xam ne rek bëgg nañ ko. yàlla def ci barki Seydina Muhammad ci barki jërëjëf fii maa fii di kontaan rek comme ni ma leen ko waxee rek tey tey ñun aussi képp koo gis ñu collaborel koo ti doon âge bu ne nag mën nañ collaborer ak yow parce que xëy na am na xel bu ñu yàlla jox et puis dañuy comprendre jamono mais day fekk ñu gis ko ci yow rek yar gi teggin gi respect bi waaw ñaar yooyu daal maa ngi la koy dénku amal yar amal teggin kooku si benn kilifa gu baax laa ko dégg muy sëñ Sidi Matar yal yàlla yàlla yokk ay reeram loolu la wax nee na àdduna ñaara ngi ku ko am rek di nga am lépp muy yar ak teggin boo yaroo di nga yor dara boo tegginuwul nag tekki dara Ah, donc yàlla ñu yàlla defal ñu ko defal ko njaboot gépp barki yoon bi di wax naa ne daal kontaan di wax rek beneen yoon rek man moom saa yoo bu a baax la suñu lépp la heure bu ñu ko soxlaa day yomb di ko béggewaat bu baax a baax tey nag ñu kër Ndiaye waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb bien vrai neen dañ ko fekk si yoon mais dafa toogoon ñu xaar te loolu mooy woon ni carrément cofeel bi ñu am ci moom moom la delloo di ko ñaanalaat bu baax a baax suñu papa papa kari yàlla bàyyi ko fi waaw yàlla bu ñu seddal dara ci ginnaawam ci barke Seydina Mohamed l'infatigable di la bégee waat bu baax a baax euh, sama cameraman suma xarit suma complice suma lépp di la ñaanal yàlla na yàlla na la yàlla fay daal coono beeg lépp di la wax daal jàpp nga ci bu baax a baax mais nag euh, di ko bégee bu baax a baax ki ñu àndal muy Modou Faye tey fayen bi lañu àndal di ko bégee bu baax baax ndax bu ñu ne koo acca ñu ngi koy bégee di ko ñaanal liggéey bi yàlla def si jàmm ci barke Seydina Mohamed mu dem waaw taxi yeeg lépp di gën a yokk dem ba am kiwu boppam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def mais Basirou dafa am koo xamante ni euh, sama mag la nekk sama consœur nekk koo xamante ni suma xarit la ñu bokk li ñuy liggéey muy pël bu rafet borom Baol TV di ko souhaiter joyeux anniversaire di ko ñaanal jàmm di ko wax yàlla na la yàlla defal jàmm naan la dundal cent ans sa ordonnance di continuer yàlla boo gis dara loola la yaa xam li nga bëgg si job bi yàlla nga ko yàlla defal ci barki Seydina Mohamed mag ju baax nga mag ju yaatu nga mag bu jàppale say rakk la ku ñàkk ki ñaan nga ku yaatu nga waaw jàpp ñëpp daal yow mënuma wax si yow yàlla laa lay bàyyee yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay ci barke Seydina Mohamed yow dundal anniversaire bi nga yàgg koo feete yàlla may la borom kër bu baax bu la attan yàlla yokk sa xéewal yokk sa kàttan ndax yow soo amee rek ñun ñëpp am wax dëgg yàlla magi jàmbur kontaan naa ci yow la femme battante la lionne borom Baol TV Basirou Kese Fatima Kese